mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax euh, amaan mbégte teewaat fii di leen nuyu di am mbégte tamit di ànd ak yéen ci solution info TV di gërëm bu baax El Hadji Modou Diouf topp Top euh, di nuyu waa solution yëpp hmm? maa jigéen Sanjoogu Aïcha Soyibu Assane ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp di leen euh, ziar bu baax a baax Betty Souka di nuyu ñëpp nag euh, di nuyu di am mbégte aussi ci ñi seetaan di leen gërëm bu baax ci commentaires yi waaw li naan les commentaires sont libres ah dañuy respecter nit ku ne ak commentaire am ak ni muy gisee waaw parce que li may faral di wax rek di def nag te kenn du ko fi waxee amul fenn comme am nañu sañ-sañ di wax lu ñu gëm nan bàyyi nit ñi xalaat li ñu gëm loolu mooy démocratie ah loolu nag wutee ak li am ci réew mi tey ji nag. ñu tànn point comme ni ñu wax ci titre rek complot international contre Sonko a réussi là où Macky a hmm? euh, ak jomaay mi naan salafis ak yooyu et après oui <laughs> salafisme et après yooyu yëpp dinañ ci wax euh, di wax rek ci diggante Sonko ak kii di président Macky Sall lu tax. tey jii ñi koy njëkkee ci waxtaan wi mooy la ma waxoon ca tàkku show ni Sonko ba xeex jotee xeex na ba dem ci yoon jotee dem na ci yoon ba wane sax faay yi suñ système judiciaire am tey jii nag ba politique jotee politique na xam ne politique étape bu ne daa am loo war a def bu rapport de force jotee nga def ko bu leneen jotee nga def ko mais tey jii ci politique la Ousmane Sonko toll ci tànn gi mu tànn kii di Bassirou Diomaye Faye loo lu tax ma ni nag Sonko dafa réussir foo xam ne Macky dafa échoué bu njëkk mooy Macky balaa muy tànn Amadou Ba dafa guddal mbayum noor yónni leen ci Moustapha Niasse ne ku bëgg dem candidat na nga ko déposé gars yi na Amadou Amadou Amadou mais bi mu ñëwee jurul lu bari parce que le train qui arrive à l'heure intéressé wul nit ñi mais train bi tardé mooy intéressé nit ñi tole bi mu bëggoon jamono bi naan non Macky mi ngi tànn ay kandaa pour man xol bi yàgg naa tànn Amadou Ba mais da doon xaarloo nit ñi pour nit ñi di xaar pour que bu nee Amadou la rek mu jur benn bës jur benn tole loolu nag amul ci candidature bu Amadou Ba parce que bi ne Amadou Ba candidat rek dafa am ñu jug ci APR Mohamed Dionne Mame Boye Diao Aly Ndiaye ba ci Mimi Touré mi demoon te dara xewul ñooñ ñëpp choix wu Amadou Ba leen bëggul woon loolu échec la ci Macky Sall parce que bu noon Amadou Ba la rek ñëpp ànd ci mais danaan coup la bu mu réussir mais. li ñëpp jàngat mooy disipline bi waroon a am mais aussi déggal bi nga ko waroon a déggal politiquement des na parce que Aliou Ngouye da ko jege Mohamed jege ko ak ñeneen ak ñeneen jege ko mais tey jii ci biir bennoo ñaata candidat ñoo fa ne waxuma la bennoo mais ci biir APR APR ñaata candidat ñoo fa ne te Macky candidature yooyu yëpp. bu sañoon du am li mu bëggoon mooy ñëpp topp ci Amadou Ba jàppale ko loolu échec la ci Macky Sall boobu nag mu échoué moom ci choix am noonu la Ousmane Sonko réussir ci choix am lu tax ma ni dafa réussir ci choix am réussite bi li ci jiitu mooy bi ne Ousmane Sonko candidat la bari na ci Pastef ñoo xam ne danoo dem déposer seen candidature candidature boobu ñu déposé di Abbas Fall di El Hadji Malick di kii di Birame Souleye Diop ba ci Bassirou Diomaye Faye Guy Marius Sagna ñoom ñëpp danoo nekk candidat dem jëli seen i fiches parrainage mais bi usmaan Sonko ne na ngeen ma déglu danga kaa déglu jamono ji Ousmane Sonko mën a digal ay nitam na leen déglu leen ma. dañ kaa déglu amul ku wàcc dem uti parrainage ci turu Pastef loolu mooy wane ni moom général la boo xam ne ñi ci ginnaawam déggal nañ ko te Macky réussirul loolu loolu tax man la Ousmane ko dafa réussir lu Macky réussirul mooy mën a wax ay nitam yam leen fii xaar leen ma fii bi demee ba bis mu tànn Bassirou Diomaye Faye ne ko yaay candidat bii dem ci parrainage yi waxul ni yaay candidat bi de yaay plan B de mais yaay candidat bi dem ci parrainage bi Abbas Fall Guy Marius Sagna Birame Souleye ak El Hadj Malick Ndiaye ñoom ñëpp dan ne la Ousmane wax ca la ànd comme Basirou la wax nan bàyyi Basirou mu dem te bu leen neexoon ñu ne ban légitimité lanu Basirou ëpp ban légitimité lanu ëpp bu weesoo doonoon doon secretaire général numéro 2 wala mu nekk jiitu woon cadre mais comme mi ngi ci prison te dara wóorul ci ëllëgam ñun duñ jël risque boobu loolu mënoon na am te buñ ko defoon logique lay doon ku mel ne Birame Souleye bu jugoon rek na nii non ku mel ne Guy Marius Sagna dem bitim réew ñu bari jox ko bopp moom tam bu jugoon ne ànduma ci dina am ñu ko topp mais fa Ousmane joxoñ fa la ñëpp xool te pourtant mi ngi prison te prison ku fa ne da naan da nga affaibliru xam na ñu bari dañ naan Macky Sall li mu yoratul décret te war a dem moo tax gars yi déggalatuñ ko mais Ousmane Sonko yorul décret te ëllëgëm xamuñu ci dara ku nekk prison xamuñu kañ lay génn kooku mën a digal ay nitam ñu def kooku bu jiite woon réew mi tey ji ku mu ne jaaral fi nga jaar fa loolu nag Macky Ousmane sonk opposant réussir loolu la Macky Sall raté politiquement looloo tax ñu ne. da ko jox ab leson politique maanaam leçon politique beneen bi ci topp lu tax APR am problème te Pastef ci situation bi amu ci problème te munoon jur problème nag munoon jur problème su waaw jomaay bi munoon jur problème mooy Ousmane Sonko li wala fi naan lépp lu tas sëy nuyu woon na ca ngoro gi da nga kaa fayul. bi ñu demee ba jugee élection présidentielle deux mille dix-neuf Pastef gën a yaatu parti bi di Pastef dafa gën a yaatu mbiri Adji saar ñëw cooli bari na mais ñu sentir ni ñu étaler ay faiblesse ci la M2D juggu après affaire yi mën a taxaw mais Ousmane dafa changer Pastef def ko parti africain dugal ci ay nit yoo xam ne du duñu Pastef authentique ñu structuré partie bi ñu structuré parti bi jël Bassirou Diomaye def ko numéro deux xam nga lu tax tey jii Bassirou Diomaye mën na légitime ñëpp nangul ko bi ko Ousmane di def numéro 2 ah xamuñu woon lu xew de mun na am dafa sóoroon ni lii mun na xew mais bu doon ni dañ ko def comme APR parti boo xam ne benn élément la am nekk ab armée mexicaine bu weesoo général bi kenn tekkuwu fa dara tey jii xëccoo mën naam mais kii di Ousmane sonk dafa fexe ba ñu structuré Pastef naam du parti bu yàgg ñoom Yacine Fall. ñu am lu leen jox ñoom Diallo Diop ñu am fu ñu féete parti bi ñoom Madieye Mbodj ñu am fu ñu féete parti bi yemuñu foofu mais kii di El Hadj Malick bu communication jotee mu dem doxi ko maanaam côté communication ca yam ca Birame Souleye lan ko dénk mu koy doxal Ngagne Demba Touré mi yoroon ndaw ñi di ko doxal avant Ngagne Demba Touré am na ku yoroon ndawi Pastef fii mais bindee ba jamono danoo indi. Ngagne Demba Touré parce que foofu la communication ci wàllu yoon dafa amoon solo kon li il faut nga jël un jeune nga mettre en valeur tam Ngagne Demba matoon na ko pour wala coachingu Ousmane Sonko man dama naan Ousmane Sonko Macky Sall mi ngi mel ne Guardiola ak José Mourinho maanaam te loolu stratégie bu baax la woon parce que le débat était juridique mu jël un jeune sànni ko ci terrain bi jël Bassirou Diomaye def ko numéro de numéro 2 boobu mu ko defoon. parti bu am structure ku ne xam ne bu fi numéro un nekkul numéro deux moo fi ne moo jur tey jii ba Bassirou mën a am légitimité ndax Bassirou gañewul élection ca njagañaaw te mosoo gis mobilisation bu mu def waaye nangu woon na ni Ousmane mooy pee ñu nangul ko ni yaay des seetluwoo bi mu duggee kaso lu lay wan ne Pastef parti bu structuré li nit ñi wax mais c'est un grand parti par lu tax man la bi Diomaye duggee kaso rek danoo haut secrétaire général intérim ñoo teg ko parce que kaso mënoo fa nekk di lijjanti yenn yi mais ñu dem jëli daafe teg ko mais boo xoolee tey ci parrainage bi ak digganteem ak DG mais talent bi mu ci wane ci politique mais da nga naan Habib Daffé est-ce que xaaroon nañ ko ci moom dafa bett ñu bari ak rigueur ba ak bi ak yeneen i bànqaas yi tey jii moo jur lu mel ni foofu nag la Macky échoué. fu boo nga gisee ma bind ci titre bi ne Ousmane Sonko dafa réussir loo xam ne ki da ko raté mooy structurer partem defar ko discipliner parti bi ku ne ñu xam kan moo ci topp naam moo ko jiite waaye jëlul jëmmam teg ci kaw projet bi la la doon gëmloo maanaam mbir mi projet bi la projet bi nag képp ku ko mën a doxal ba mu sotti rek yow la xam ne ki ne la man sama vision ci cinquante ans laa ko namm kon kooku gisul boppam parce que Ousmane Sonko bu bu âge bu amee cinquante ans nga teg ci cinquante mooy wane ni kon projet bi séntu na ci leneen <coughs> leneen kon loolu mu doon un point bu am solo ci leçon politique yoo xam ne Ousmane Sonko dakaa teg léegi nag beneen leçon politique boo xam ne Macky da ciy échoué Ousmane Sonko gagné ci mooy Macky Sall xeex beeg Ousmane Sonko. coup yi mu amoon yëpp da ko dóor maanaam dafa dajale coup politique yi coup yoon yi yëpp mu dajale ko te li ko li ko mayoon doole moo ko affaiblir mooy xeexu Ousmane ko APR musu ci xeex xeexu politique Benno musu ci xeex xeexu politique li son ko doon wax rek bu doon ni man ak waa Benno wala waa APR ñoo daje. ñu xam ne ñaari parti ñoo daje ñuy politique comme ni PS ak PDS doon def ñoo xam ne ñaari parti politique ñooy xeex mais Macky dafa jël état maanaam boo xoolee état lañ gis ci terrain bi mu jàkkaarloog Pastef parce que boo xoolee ay tas parti yi ay tëj ay nit ay lii lu ne mu topp ci mais loolu tey jii moo jur Pastef mën fee ne sur le plan politique parce que politiquement ñu ko dominer ci dara. jamono ji Macky dóoree balam yépp nag ba ñu jeex Ousmane sonk def coaching gagnant coaching gagnant xam mooy lan mooy remplaçant yi ñooy gagné match yi wala fi nee nan mbër mi ub làmb wala gàllaaj goo xam ne mooy ub làmb kenn du ko sàqami ci géew kër ga lañ koy sàqamee Ousmane sonk la mu doon togg moo ñor léegi nag Macky kuy mu amoon yëpp dóor na ko mais Ousmane Sonko nag dugal na jomaay mais lan lay wax jomaay dugg na mais est-ce que moom la <coughs> est-ce que jomaay la ba tey jii est-ce que jomaay la est-ce que jomaay la parce que def na ko yaa ci parrainage bi yaay sul candidat ka parrainage citoyen bi mu jur li mu jur mais tey ji ban galgal la Ousmane Sonko waajalaat gars yi ak lan la leen préparé pour ëllëg yàlla moo xam. te tey ji Macky Sall bu dul amadu Ba amul leneen te ñoom ñoo dem ba nangu ni amadu du waaja matu ko mbër moo xam ne dangay ngay taxaw ci géew ñuy laaj kan mooy mbër ma mbër moom matul mbër te lii jiituwul tey élection législative yi ñu génn biñ ne liste Yewwi Askan Wi titulaire yi dindi na leen mais Ousmane Sonko dafa battre campagne pour suppléants yi ay booyu Ousmane Sonko ñoo jàkkaarloo woon ak ay grand Macky maanaam liste suppléant bu yeewi ak titulaire bu bennoo ñu dem bay diirante mbagg maanaam yow da nga teg say grand man ma teg samay petit te mënoo leen gañe kon tey jii man bu ma tegee samay grand est-ce que di ma mën a gañe te tey jii naa yi am na lu mu wane boo demee ci terrain bi ak ni ñu namewoon jomaay te euh, euh, Macky Sall créé na loolu ci Amadou Ba xaar bu yàgg bi yëpp candidat bennoo kañ la xaar bu yàgg bi yëpp la la woon pour que. nit ñi xaar bu ne Amadou Ba rek ñëpp jóg mais dana Amadou Ba la rek ñëpp sedd guy coup boobu nag mu raté ci Amadou Ba moom la usman Sonko réussir ci bassiru Diomaye Faye te coup de com boobu waa Macky yi joué nañ ci parce que Ousmane sonk nan la mën a nekkee ci kaso di wax ak sénégalais mënul ne mais administration pénitentiaire ministre de la justice bind communiqué may leen gën a beneen tole wala bin indee Diomaye mu dox loolu mais aussi tamit. li coup politique bu mu réussir mooy mu dem nekk ca Cap Manuel nekk en prison le fait que Diomaye nekk en prison lu baax la parce que Diomaye di Ousmane Sonko tey terrain bi ñu leen dugal terrain bi ñu leen dugal mais dafa baax ci ñoom kaso gënul rek mais dina permettre ñu mën a doxal seeni mbir mais aussi dina nëbb seen i faay parce que tey jii Bassirou Diomaye Faye mii dinaa dikk après ci salafis gi ñu koy jiiñ tey ñu ngi koy teg débat wu salafis Bassirou est-ce que du salafis ak yooyu loolu neex la bu nekkoon tey ci biti Bassirou Diomaye fay parce que y a des questions qui dérangent même bu dul dëgg seytaane waxul dëgg yàq na xel mais même bu dul dëgg nga ni Bassirou Diomaye fay salafiste la mais tey bu ko fekkoon ci terrain politique mu war a uti parrainage dem muyal la mayo du ñàkk ay faayam feeñaa ah, affaire nit la mais journaliste dina ko dab na ko jomaay mais gars yi neen salafiste la de Cheikh Omar Anne nee na nga ah Moussa Ba Jaxate nee na nii wala ñu ni ko député Cheikh Seck nee na nii mais qui sa s'accuse léegi lan la war a tontu mi ngi mel ni Abdoulaye Wade jamono bi ko tubaab yi naan est-ce que franc nga Abdoulaye Wade tontu ba mu tontu moo ko dugal ñu exploité ko politiquement fii au Sénégal dem ba ñi naan Abdoulaye Wade mi doon wax naan murit la du murit waxoon naa leen ni lii la gëm pourtant tontu ba la mun na bañ a nekk sax franc-maçon mun na ci sax bañ a nekk mais le fait que ñu posé que la question mu war a justifié wu rek problème la mais tey jomaay débat boobu ñi koy tuumaal xamul da du ko réussir mi ngi ci kaso bi. ku noppi kenn du la xamal dara te kaso ku ci nekk noppi <laughs> mais c'est grave loolu dama ni la ñii ay cuune lan cuune tey jii ba parrainage yooyu door di nga bun bàyyi woon Ousmane ko daw ak gars pare ne ak ñoom du demee nii te Ousmane moo ëpp bayre jomaay parce que parrainage daa metti parrainage deux mois la boo day au mois da ngay xoox boo gisee gars yi danoo sonn Amadou Ba dafa dem ba un mois la dawal taxaw Amadou Ba un dawal taxaw Macky na ko non ñun parrainage député yi bari na ñu nekkal ci. parce que pare deux mois dafa métti ça demande des moyens contact ak nit ñi ngay dégg ne dafa métti mais loolu musal nañ ci Ousmane Sonko loolu da jamono bi ñëpp xooxee mais ci la Pastef jóg di parrainé ji loolu da mbir mi dox maanaam kii jaay ker la ba timis jot da lalli timis jot na fi mu ne nii terrain bi problème moo fi ne pourtant boo bàyyi woon Pastef mu dem au bi man dama gëm ni Ousmane ko bu sañoon opposition bi ñi ci nekk ñu bari dina leen parrainer par que opposition candidature yi bari ci opposition moo gën pour élection présidentielle parce que tamit premier tour mun na ne mais deuxième tour mun na ne te deuxième tour daa am loo soxla teg ci maillage su territoire bi parce que daf ci am gox yoo xam ne opposition bi dafa faible. kon ngay am yenn candidat yi ci opposition ñu mën di fa teg seen tànk même bu ñu amul mbooloo mais ñu am logistique am ay oto yu am xaalis goo xam ne fu mel na Matam wala Podor xam ne opposition da caa faible ay Kédougou mais nga mën fa teg ay nit même bu dul bu la leereen sax da koy perte mais ñu mën a superviser élection yi parce que li xew ci local ak législative yi mais am na ci gox yoo xam ne dañ fa sëlam opposition bi xamuñu lu xew réellement xamuñu lu xew réellement ni ngi wax ay bourrage des urnes ñu ngi voteloo ay xale mais dara wóoru ci dara wóoru ci di nga ci li am na lu xewoon maatam am na ñu seet woon Ousmane Sonko révélation bi ma leen def mais bi ñëwee ci moom wax ko ni élection yi nii def na la ana preuve yi parce que yéen ñi fa dëkk mais yéen a war a topp élection yi ba loolu bañ a am wala gen am preuve yoo leen indi boo xoolee débat boobu Ousmane Sonko après dugg ci dugg ci politiquement dugg ci léegi nag. kon tey jii bu ne woon tey opposition bi mais ku mel ne Malick Gakou mën nekk candidat mais Ousmane Sonko du ko bañ Déthié Fall nekk candidat Ousmane Sonko du ko bañ parce que soxla na leen deuxième tour ah Serigne Mboup nekk candidat Ousmane Sonko du ko bañ peut-être Anta Babacar nekk candidat Ousmane Sonko du ko bañ parce que boo xoolee tey jii ñi bokk ci koomu réew mi ñu bari danoo dugg ci politique bi seetlu woo leen loolu Anta Babacar entreprise la yor Serigne Mboup entreprise la bu Bougane Gueye entreprise la yor am na ñeneen ah mais comme ñoom laa gis ci terrain bi ñoom laa mën a tudd mais ñooñu tey ñee réew mi réew mu yi moo leen dugal ci politique ak ñàkk a gis seen bopp ci li ñuy liggéey Ablaye Wade nga fi woon politique gu ñu pourquoi Macky Sall maanaam jafe-jafe réew mi mais les chefs d'entreprise yi mag yi sax dañ ko yëg te ñooñu am na nañu moyen am nañu logistique mais Ousmane Sonko soxla na leen deuxième tour. loolu la des fois waa Pastef yi bu nangu rek di di di écarter lépp jàpp ne Ousmane Kase la daa am leneen luñ soxla te ñeneen ñoo ko yor <laughs> daa am leneen waxuma ay politiciens de mais daa am ñu dugg ci élection yi ñu bees ñoo xam ne même bu nekkul candidat lañ yor yow da nga ko soxla mooy xaalis mooy logistique ak yeneen yu mënta wax ci kaw am yeneen yu ko parce que mag am na loo xam ne mënalu ko boppam mais ku ko mënal mu jël. ko mënal mu jël te fa ñu jëm dafa laaj renfort loolu tax tey yéen a ngi dégg waa Benno yi naan yi mi ngi dox pour jëli ñenn ñi après parrainage bi am na journal bu ko bind te journal boobu am na lu ma ci xam parce que day xam li xew journal boobu du journal bu mag mais ña ko jiite dañuy xam lu xew parce que ci système bi lan bokk ñu ne yeneen candidats yi fàqawoon ci bennoo ñi ngi fexe après parenage bi ñu xool nan la leen di indee renfort parce que sentir na ni Pastef ak mbiri jomaay bi yëngal na leen kon ñoom il faut ñu ut nan lan renforcer seen bopp mais Pastef aussi tamit bu mu xas kenn ci opposition bu mu ŋàññ kenn bu mu wax kenn dara parce que ëllëg tamit mën na leen a soxla ci renfort li naan guerre bi système la ak anti système kon loolu taxawaay la boo xam ne dañ ko war a am léegi ñu naan jomaay nag salafiste la. di nga wax jooju noonu waa Pastef waruñu ci sax topp di wax parce que li leen tiital mooy parrainage bi ak ni mu doxee nii ak ni mu mel nii parce que ci wàllu yoon man de déglu naa ay borom xam-xam jëm naa cee gëstu mais lu mën a gàllankoor jumaay amul bu ma matalee parrainage day nekk candidat est-ce que moom rek mooy nekk candidat Pastef nag xaw ma ndax Sonko brouillé na carte yi recevoir na Habib Sy Guy Marius Sagna recevoir ñoom Dame Mbodj recevoir kii Cheikh Tidiane Dièye léegi lan lañ waxtaanee ak lan lañuy waajal pour ëllëg mais nañ jàpp ni jomaay moo fi ne ba leneen di xew te lu ko mën a gàllankoor nekku fi mais daa am li ñuy wax ci wàllu ñiy def armée s'appelle le moral s'appelle le moral parce que tey ñu ngi laan la ay jomaay salafiste mais am na ñoo xam ne des pratiques machiavéliques maçonniques et sataniques mu na ci leen ne xamuñu ñan ñooy seeni sëriñ fan la leen formé jamono ji jomaay di ibbi alxuraan di jàng mais am na ñoo xam ne bu ñu xëyee Machiavel lañuy jàng <laughs> ak yeneen téere ah ko jomaay jamono ji naan foo ko fekk téere alxuraanam la yor di ibbi tere yàlla bi am na ñoo xam ne bu ñu xëyee Machiavel lañuy jàng ak ñeneen débat boobu duma ci sori ndax réew mi moom <laughs> ñu ngi fiy bëgg yàgg tuuti te nag ñu ngi bëgg yàgg ak mag ñi ñu bëgg yàgg ak mag ñi te jë maanaam daal mbiri politique bi daal xaw nañ cee bëgg yàgg tuuti mu si ñoo politique nag mais ñu ngi waxtaan ak ñii politique kon yooyu il ñu bàyyi ci xel kon mu doon débat boo xam ne bu ñu ko imposer kii lii la kii lee la Senghor jiite na Sénégal keneen ak keneen jiite na Sénégal ñi jiite yow Sénégal yëpp lu mu doon Abdou Diouf bi mu jógee ci réew mi mos naa ko dégg ci benn entretien mun ne je suis un musulman moderne musulman moderne mooy lan ah comme jóge na fi kilifa la ci benn documentaire boo mais ni tu loolu la tubaab yi tuddee musulman moderne <laughs> pourtant mos ñu poser question ci Abdou Diouf hmm? Ablaye Wade mos ñu poser question ci moom Macky Sall mi ngi fi. xam nañ la Seydou Lamine waxoon ba ndaje ci avion ba mais intéressé wuñu parce que ñun liñ bëgg mooy ki defar réew mi am vision boo xam ne dinañ yóbbu fa sore mais débat bas étage waa passé fi bu nangu ku leen ci dugal parce que mbottu nawet yi Serigne Cheikh nee na ku leen bëgg a taaj sa tool booy kii daw di gestu sa doxin day yéex doxin day yéex maanaam doxal dox bi bu leen faale dañ looy tardeel nekkal ci li nga ne parce que des fois am na yoo xam ne pan argument la ay Moustapha Diakhaté yi ñuy wax yëpp du argument ay Cheikh Seck du argument panique la ne danoo jaxasoo beneen bi ci topp mooy ay euh, Cheikh Oumar Anne du argument Ousmane Sonko dafa poser ay acte politique nan ko répondre politiquement politiquement am seen candidat jamono ji ñuy jël seen énergie dama leen di conseil waa benn wi di ko def ci Diomaye mais nan ko def ci Amadou Ba ba Sénégalais yi gën ko bëgg gën ko xàmme ba kenn du laajte mooy kan hum kenn du laajte mooy kan loolu tax man la Macky daa échoué foo xam ne sonk daf faa gagné léegi nag mbiri Diomaye fay yi ci laay tëje lu tax baatu salafis yooyu di ñëw nag laa leen di wax baatu terrorisme mouvement insurrectionnel dafa am baat yoo xam ne tubaab yi dañ kaa ragal tubaab yi dañ kaa ragal boo xoolee le président de la république heure bu génnee dem bitim réew. bii wax day baat yooyu da ciy appuyer mooy oto bi ay jigéen ñoo ci nekkoon ñu rey leen acte terroriste yooyu tubaab bi dañ ko ragal maanaam tubaab bi bépp nit boo xam ne da lay jiñ mbiri terroriste da lay ragal léegi nag moom boo xalee Pastef xaw a wér ci xeex bi sur le plan international même dogal bi CEDEAO jël ak yooyu mais daf ci am xam na ñun li ñuy xam ñun xam nañ Pastef wuñ ko yenn yi mais ña nekk bitim réew combat bi ñuy gars yi di. tëral mooy fexe gëmloo ñi nekk bitim réew ni ñi ay salafiste leen ñi ay terroriste leen maanaam communication boobu bu dee jàllul ci réew mi day jàll ca bitim réew moo tax boo xoolee liñ teg Ousmane Sonko teg nañ ko ay opposants ci Afrique mais da nga ciy dégg Nations Unies département d'État bu Amérique danga leen ciy dégg mais da ciy dégg France mu jug wax ci da ngay dégg réewu Afrique yi. même yeneen président africain yi jug wax ci pourquoi Ousmane Sonko dugg kaso ñoom ñëpp ñu na perte def na grève de la fin lu ne dugg na ci lu ne teg nañ ko ko ñu koy seetaan mooy dafa am benn caricature ak benn image bu ko état Sénégal jox ca bitim réew te tubaab yi daf ci am yoo xam ne bu amee dañuy teey moo indi ñàkk CEDEAO Guinée non état Sénégal droit Sonko salfaa ñu ngi ci dara parce que danoo jàpp ni le Pastef c'est un mouvement terroriste wala insurrectionnel wala entreprise terroriste kon loolu lañ ci jublu kon communication boobu defuñu ko pour ñun mais dañ koy def pour waa bitim réew ak ñeneen ko bitim réew gën a seetaan Ousmane ko ci xeex bi te seetlu bu baax li ma la wax am na benn jamono ñu dem jëli Robert Bourgi Robert Bourgi bu mu ñëwee lu mu def dafa chargé Ousmane Sonko boobu tëjagun Ousmane Sonko ñu dem jëliwaat Ahmed Ben Yahmed bu Jeune Afrique bi Macky Sall di waxee directeur de publication bu Jeune Afrique dafa ñëw chargé Ousmane Sonko seetloo genre communication yooyu bu ñu koy def duñ ko defee fii ci réew mi mais dañuy fexe ba dem ci journal bitim réew ak yenn lobby yi nekk bitim réew ñu fexe ba dugal lool seen bopp pour communication mën a jàll ba xeex bi bu dee mënuñu ko xeex ci réew mi. mais waa bitim réew seetaan Ousmane Sonko parce que ñun suñu nguur yi waa bitim réew la ñuy déglu dégluwunu Atepa Goudiaby dégluwunu Cas Casamance dégluwunu sëriñ si dégluwunu kenn waa bitim réew la ñuy déglu léegi nag dañuy fexe ba waa bitim réew du ñu intervenir ci mbiri Ousmane Sonko parce que am na pression internationale bu ñu doon def suba ñu bàyyi Ousmane Sonko looloo tax tey jii. journal bu mel ne Jeune Afrique bi Macky Sall waxee ba pare mais la am na question boo xam ne posé wuñ ko ko bi mu ne soi-disant patriote yu passé bi ñoo taal oto beeg yooyu kërëb kërëb nii mais munoon nañ ko laaj li dee ci manifestation yi fan lañ ci toll ak fan lañ ci jëm pourquoi laajuñu ko kon dama jàpp ni dafa am un complot international boo xam ne Pastef da ci nekk mës a nekk victime. loolu tax Ousmane Sonko balaa muy dugg kaso wax na ak sénégalais yi li may dund nii ak li ma nekk yaakaaruma ci kenn ku dul pour ko pourquoi mu ne yaakaaruma ci kenn kulul dul sénégalais ak yàlla suñu borom parce que xam na ni la koy wàllu jugul bitim réew yàq nañ fa deram peinture nañ ko ba mu ñuul kukk teg boo xoolee mbiri terroriste li ci ëpp Macky Sall du toog fii Sénégal lu bari di ci wax mais heure bu demee ci média bitim réew yi rek loolu moom da ci sawar a wax maanaam ci passé fu nii nii kërëb kërëb kërëb parce que yooyu ñoom dañ ciy bàyyi xel te dañuy def communication politique boo xam ne tey jii parce que pour ñu justifier ni Pastef mouvement terroriste la entreprise terroriste mouvement insurrectionnel mais communication boobu lañuy teg kon juge CEDEAO bi dogal bi mu jël da koy dugal ci yooyu yépp te nag Ousmane Sonko tey falu fii ci Afrique mooy nguur yi bari ci Afrique dañuy daanu. parce que système yi ci Afrique yëpp ñoo bokk ni ñuy doxee demal Côte d'Ivoire demal feneen ak feneen léegi mi ngi changé sax ak yenn réew yi demal Gambie demal feneen ak feneen système yi ci Afrique ñoo bokk ñuy doxee ak nit ñëw nag ne parti africain laa yor mais damay fexe ba système bi jóge fi beneen système ñëw mais ñi nekkoon ci système bu njëkk ba du Macky Sall kese ay Ouattara ñi ngi fi ñeneen ak ñeneen loo tax tey ji combat yi sur le plan international di ci gërëm gi ma Juan Branco def na ci liggéey bu am solo mais aussi il faut que xeex boobu ca bitim réew gars yi gën ko yokk pour que complot international boobu bañoo a sotti kon di gërëm ñëpp di leen jégalu di baalu ak ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ah di gërëm ñëpp di leen sant kon euh, beneen alxamis rek ñu dikkaat ci 30 minutes chrono mbokk yi jërë ngeen jëf.